àtte euh, dog-dogu courant yi ba tey ci askan wi université Cheikh Anta Diop Ndakaaru étudiant yenn yi dañoo mujj rotaani ndax ñàkkum ndox fan yile euh, BFM bi moom seeni rak njëngu ci wàllu classe troisième sëgg ci examen boobee tey ci mbooloom diwaani Sénégal épreuve français ya lañu dooree l'hôpital El Hadj Ibrahima Niass gréwo téeméer ak ñeent fukk juróomi agent tax direction ba euh, sukkandiku ci vacataire ngir paje ma bañ a dakk bitim réew ak rek ak Alpha Condé njiital Guinée Conakry ginu song ak ngànnaay yu diis ci xibaar yi Jeune Afrique sax am na na ca bakkanu rot ay yàqu-yàqu naka noonu tàggat yaram fii ci Sénégal écurie euh, waa Falay Balde euh, nangu seen CNG jëm ci ajak Ama Balde juróom-ñeenti weer yum dul bëre ndax jaan ja mu dugal ci arène ba nangu nanu dogal bi euh, di sàkku njëgal di ko yaakaar waxtaan wi gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaane assise yi Ndakaar ak Ziguinchor ci wàllu atte yi nu bëttal ba beneen ndax ñàkkum koppar fanweeri million nu ngeen ko gisee seen xalaat ci njeextalu xibaar yi ci technique bi Abdoulaye Diop xibaaru bëccëg Assane dañuy door xibaar yeeg examen BFM yi door tey ci mbooloom diwaani Sénégal ñii di euh, ndongo yi nag épreuve yu njëkk ya mel ni saful ci ñoom français ga génne nañu ca yaakaar awa mbay nga woon ci centre ci Ndakaaru candidat yëpp ngi ci biir salle yi door seen i épreuve ci ëtt bu mag bi chef de centre bi ak président jury yi donc ñoo fa taxaw di saytu doxalinu examen yi gannaaw nag ba ñu séddalee élèves yi ñaari sujet bu épreuve bu njëkk bi Abdoulaye Demba Sy di chef bu centre bi di ñu defal situation bi. lycée bi nag dafa am ñeenti jury ñeenti jury yëpp soo leen boolee am na ñu junni ak fanweer ak juróom candidat démarré nañu depuis huit heures dix. ba tegee ca la Mafal aaj moom génn ca salle ba moom sax moo njëkk a pare nee na épreuve bi abordable na mu wax ree reeju sew. oui oui oui c'est abordable. bon sujet nga jël. sujet wax fii léegi xale yi lii rëtuñu defatuñ dara ñoom léegi si si sport bi lañ intéressé ak si làmb yi. Astou Diallo moom itam ne mbir mi jafe jafewut bu dee épreuve bu njëkk bi muy ñaan nag li ci topp mel noonu. c'était abordable quoi élève yi mën nañ ci génn ren moom yaakaar nañ ne nañ ci génn parce que épreuve bi ni ñu commencé bu ñu continuer ni ñu kiiwee nii parce que bac bi tam. c'était abordable parce que ñi ci génn bëri nañu quoi alors j'ai pensé que BFM bi tam dina mën a yombee noonu quoi. Modou Diouf moom bu dee gis ne ne li njëkk a romb yomb na mu ñuy wax tiitangeem ci li des ci examen bi. Euh, programme bi jeexal ñu ko. mat mat jeexal ñu ko. parce que grève yi ñoo bëri woon moo gannaaw nag ba français bi jàllee ci suba si candidat yi kon ci ngoon gi daañu song yeneen ñaari matière ci examen bi te mooy anglais ak SVT. soxna Awa Mbaye banlieue Ndakaaru it gune yi sëgg fa ci subaak léegi ci wàllu examen xam nu mu demee foofee ci ñoom yooyee ndongoy banlieue Ndakaaru ñu ànd ak Salif Sow. centre Pikine SA salle 1 gone yay jongante def nañu li nga xamante ni mooy dicté bi ñu ngi xaar question yi di laaj yi 11h toftalu na ay simile fii amul benn jafe-jafe boo xamante ni nemmeeku nañ ko fi ginnaaw ñeenti jongantekat yi nga xamante ni teewuñu te waxuñu lu tax Ali mooy président jury bi moo ñu ko xamal. fii ñuy waxee li ñu tàmbalee ba léegi amuñu benn jafe-jafe. salle bu nekk ñaari surveillant euh, ñeent ñoo ñëwagul ñoo ñëwul waaw parce que ku ñëwul ba léegi parce que boo deful benn épreuve bokkatuloo. ñeneen ñoo xamante ni ku mooy wut du ñu am li nga xamante ni mooy BFEM bi mooy ñiy waaj a tricher ñoom ñoo ñëwee ñu leen di xamal li leen di xaar. première mesure mooy façon dañu lay dax deuxième mesure nag mën nañu dem bay egg yow fu ma xam ne doon benn. mais itam sanction la première sanction mooy dinañu suspendre ay at yoo def examen bu at yooyu jeexee nag. a ah, booy dellu si itam du tere ñu bàyyi ci yow xel. ci département bu Guédiawaye wàññi nañ fii lu toll daanaka ci fanweeri junniy candidat ci BFM bi. donc Guédiawaye am nañ fi fanweeri jury yu mel na bii boo xaymaa ni waaw li digg doomu daal mooy juri bu nekk jàppal ni ñetti téeméer la. examen bi nag dina dem diirub ñetti fan Salif Sow. centre Pikine SA Guédiawaye rajo Futurs ñu waxtaanee wérgu yaram hôpital euh, bu euh, El Hadj Ibrahima diwaanu Saloum responsable banque de sang ba foofee lankal infirmier ba amoloon amaloon mbébét ay test ngir jàngoroy sida ab yëngu foofee kon um, lu jëm ci euh, test yu mu waroon defal li détenu du ñu ci kese yi ay leeralam moom responsable boobu Euh, centre Mbaye Kébé ñu déglu ko mooy secretaire général sous section sud sas ñu déglu ko ak Ibrahima Benjamin Diagne. li tax ma bañal ko ko daf ñu fekk ci mouvement de grève comme dañu nekk si grève nag wax dëgg yàlla bu ñëwee ñaan ma yenn services yi duma ko mën def parce que nekkul service boo xam ne urgence la dafa gis rek bunt bu ubbeeku mu jaar fi comme xam na ma mu jaar fi ne daa ko jox ay tube donc là ak euh, sama statut secrétaire général au niveau de l'hôpital nga xam ne léeg-léeg suba gu nekk ma jaar pour xool au niveau des services lan moo fi nekk la noo liggéey ak ñu liggéeyul donc bu ñëwee fekk ma foofu aussi mun moo ko jox ay tube parce que dañu nekk si grève même dérogation mënul am ci détenu yi mais dérogation mënul am parce que dañu nekk mouvement de grève li tax ma ne dérogation mënut am parce que nekkul urgence bu nekkoon urgence kon li wóor mooy ñu duñ ko gérer fii wala nga xam ne depuis altine lay ñëw parce que man xaw ma analyse yi kañ lañ ko def moom dafa bëgg ne fi mu nekk nii confirmation lu bu confirmation bu analyse bi foog nga remonté kañ lañ def analyse bi parce que bala ngay demander confirmation kay déjà ñoom def nañ am na ñu def ba pare. waaw waaw mais c'est nii euh, donc dañoo mënaluñ seen bopp c'est-à-dire euh, dañoo nekk ci position de faiblesse. waa même lu ñu nekk nekk ci position de faiblesse dafa am analyse yoo xam ne nekkul urgence. mu nekkoon leeral di kon euh, ki nu dénk. Euh, yori nduk euh, banque de sang bu hôpital El Hadj Ibrahima Niass euh, infirmier kasob diwaan ga bëggoon a amali ay test ngir détenu foofee ñu nu fa tee ñeel jàngoroy Sida mu lankal leen ko ndax danoo ne ci gréew ni mu ko waxee moo jiite banque sab SUTSAS foofee diwaanu Saloum fàttali ni waa SUTSAS sa sumb nañu grève bu ñetti fan yeneen euh, sumb ko tey ëllëg ak gannaaw ëllëg lay doon grève boobee tax na sax téeméer ak ñeent fukk ak juróomi agent yu euh, hôpital El Hadj Ibrahima Niass euh, banque seen loxo ci liggéey gi direction ba it ngir bañ paje mi dakk foofee ca googu diwaan ma ngay jëfandikoo vacataires yi ngir wéel taxawu gi ñeel malade yi fii ci ndakaaru université Cheikh Anta Diop ndox fa manqué courant bee fa jaar ki di daara yi noonu lanu joxe nay leeral étudiants nag faf mujj doon ñuy rootaan yi reportage Ñuma Ba. Amina muy étudiante di ñu xamal la muy daj ngir am ndox. coupé na yàgg na trop et puis na trop quoi ndax dañu jël suñu sooy di wàcc bokk imagine nga dëkk quatrième war a ñëw ci ko ci kaw fi day métti trop. dañu toog des heures sans ñu am ndox quoi dañuy wàcc suuf quoi parce que am na benn robinet bi fi nekk noonu mais nag da ngay génn bi mi ngi ci suuf à côté quoi. après nga jël soo bi nga yéeg ak moom ci kaw yéeg escalier yi c'est très dur. beneen moroomam dëkkee ca pavillon C ni moom fa mu nekk am na ndox wante du tee mu ñaawlu ñàkkum ndox mi Amadou Thiam. étudiants yi amoon accès pour euh, ndox. ba ñu si bëri dañ doon obligé ñuy dem ci robinet yi nga xamante ni installé nañ ko si biir université bi di wàcc di yéeg ak seen i vraiment affaire bi métti woon na de trop quoi quelques pavillons rek moo fi am courant ak ndox bëriwul à part ça yeneen yëpp amuñu courant amuñu ndox administration bi ci seen wàll ni mbir mi du problème technique li courant amul moo waral ndox mi mënta yéeg ci réservoir yi Khadim Amar di chef de service c'est normal parce que courant coupé démb ba ndox manqué ci yenn pavillon yi ci yenn pavillon yi du pavillon yëpp yooyu yëpp ay pompe ñoo fa nekk dañuy xëcc ndox mi ci suuf ci bassin yi di ko yéege ci kaw te pompe yi courant moo leen di doxal bu courant amul buñ fayee parfois sax courant day coupé day day coupé ñëwaat lakk pompe yi parce que lu bëri lañ ciy ñàkk ndongo yi nekkee ci université Cheikh Anta Diop di ñaax nguur gi mu yokk ay jéego ngir génnee université ca ñàkkum ndox soxna ñu ma ba ñu koy gërëm waxtaane PAM programme alimentaire mondial dundu askan wi la yittewoo ci àdduna Ziguinchor am na taxawagum fa baaxee juróomi junne ak juróomi téeméer njaboot lëngoo ci ak UNICEF ak FAO gannaaw enquête ak caytu gis ne daal wàlluk ñàkkum karangi ci dund nga ci njaboot yenn yi Ziguinchor Abdoulaye Samb crise économique mondiale te mu taxoon ba ne produit daal di fii ci réew mi tax na nag ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy ménage yi loolu indiwoon na gàllankoor ci yenn ménage yi ci enquête bi UNICEF ak FAO emal nañ ko insécurité alimentaire fii ci commune bu Ziguinchor ñu ngi koy xayma ci 27 pour cent loolu moo waral kii di programme alimentaire mondial daal di abu programme de bon d'achat ndimbalu Union européenne bon d'achat yooyu tolloo ci 3000 par personne et par mois ci maximum 6 personnes dañ ko amal ci diiru juróom-benn weer loolu nag dina tax ba ñi nga xamante ne ñoom ñooy bénéficiaires ñu daal di échanger yooyu ak ay produits alimentaires conseil ci 26 quartiers yi nekk fii ci commune bu Ziguinchor Pauline Fall mooy chargé communication PAM. ñun mbiru lekk moo ñu tax a jóg c'est-à-dire fexe ba nit ku nekk fa nga nekk boo xiifee ñu wut la mën a taxaw jox la loo lekk ba doo feebar wala nga dee ndax xiif objectif bi du dara lu dul taxawu askan wi taxawu askan wi nag li ñu wax sànq yi PAM. ñun du ñun ñooy jóg ni Sénégal nii ak nii ngay tey sa askan wi Sénégal mooy toog ba xool fan la soxla ndimbal ci wàll woowu di téye askanam mu woote ñi nga xam ni seen xam-xam màcc na ci ñu jàppale ko looloo tax PAM di jàppale gouvernement du Sénégal ñu ngi ci lënkaloo nag ak ministère de la famille dara taxu ko jóg nag lu dul fexe ba ci Sénégal gox bu ne boo xam ne am na nit du soxla ngir dund correctement ñu mën ko taxaw. ñeenteel phase programme pilote boobu ñu ko amal ci huit quartiers fii ci commune bi wax la ne nag bon yooyu nga xamante ne bénéficiaires yi am nañu ko daañu ko mën a échanger ak ceeb suukar dugub mbokk wala dulin Abdoulaye Sambou Ziguinchor RFM. jërëjëf Abdoulaye ba tey ci wàllu xibaar yeeg RFM bi réew maître El Hadj Diouf digganteem ak Famara Senghor. Euh, waa dikk euh, jógloo nañu leen procureur sàkku lu ni mel mbiram Alioune Tine nag noonu euh, yenn ci xibaar xamal ñu ne moom député Famara Senghor du ñàkk sax xëy na du laaj yëkkati kirlaayam bu dee firndewu na ni flagrant délit la ak leeral ñu ngeeg Babacar Fall Babacar ñu njëkkee mbiri Alaaji Diouf ak Famara Senghor waaw Alaaji Assane division des investigations criminelles moom déglu na ba noppi Alaaji Diouf avocat bi nekk itam député dafa porté woon plainte ca bureau procureur gannaaw agressé gi nga xam ni moom nee na député Famara Senghor bu PDS moo ko agressé keroog fukki fan ñaar ci weeru juillet ci benn salle bu nekk ci assemblée nationale. loolu nag euh, kon euh, ma nga te loxo yi dikk euh, gannaaw ba mu déglu alaaj Diouf ñuy xaar xëy na ba xam Farmara Senghor fu muy mujjee waa dikk ndax li nga xam ne moom la ñuy wax immunité parlementaire maanaam malaanu kaaraange gi nga xam ni ku nekk député day nekk ci sa kaw ba léeg-léeg yoon du gaaw a jot ci yow ni mu waree jotee ci yow ni beneen citoyen ndax loola tey dina tax Farmara Senghor kenn du ko laal wóoragut ndax ñi nga xam ni ñoo ñu jox xibaar yi te jege lool procureur wax nañ ni daal boo sàggantul mbir mi flagrant délit lay doon te flagrant délit du soxla ñu naan diw am na malaanu kiiraangeeg ñoom seen lu ci mënti am daal fi mu ne nii loola yëpp euh, enquête préliminaire bi nga xam ne digg ñu ko def jamono ji moo koy leeral. Alioune Tine nag. Alioune Tine euh, moom euh, ci xibaar yoo xam ne jot nañu ko sànq ci suba. ko na nga convoqué commission technique bi saytu mbir moomu ba pare ñu seet xayma ñaata. la fonds bi toll ba pare ñu fay ko greffier yi beneen bi euh, ci mbiru formation greffier ad hoc yi garde des Sceaux na eh, formation bi ñu sumboon te mu war a jeex le 22 juillet bii di ñëw ajuma bii di ñëw nañu ko bàyyi mu law nañu ko bàyyi mu continuer waaye bu xasee ba jeex kenn dootul formeeti greffier adog question bi des mooy indemnité de participation à la judicature te kooku greffier yi jotoon nañu def benn proposition dégg nga jottali ko waa ministère des finances amul benn revendication boo xam ne bii am na incidence financière dégg nga te ministère des finances du ci jox du ci joxe xalaatam moo tax. Marcel Mendy yore wàllu communication ministre de la justice euh, lu ñeel. grève surgis bi ni ñu ko waxee gindikoo nga ci am poñu ca bari ak laqartiku am na ca wàllu politique ak URD ka ci yore wàllu communication jégaan seen indil tontu Idrissa Seck mi yëkkateeti kàddu ya li nga xamante ni mooy wax wëlbët ak yeneen doon def li nga xamante rek mooy ak pat li ñeel jiboole ci ka jamono ya mu génneeg audience ak Abdou Diouf ak diggam ak Abdoulaye Wade ak ginnaaw si na mu ca doxalee jigaan seen di ci indi leeral ak tontu al san Samba Diop a jokkoo ak moom. judoka bu muy exprimé wu en 2000 lu mu def mooy suivre par te lu mu njëkk a wax fii en 99 des ans mooy moom ci opposition bi la bokk bon nag euh, xalaatam c'est très simple mooy moom bu def eggul second tour euh, ku jàkkaarloog Abdou Diouf moom lay jàppale ci opposition bi xam nga loolu leer na moom rek a wax ensuite Moustapha Niass un peu avant ouverture campagne électorale bi wax la même chose ñoom ñaar rek laa dégg ci candidat yoo xam ne amoon nañu importance ñu wax loolu exprimer mu clairement war sax exprimer waxul dara ci côté boobu donc xam nga loolu leer na ñu dem de second tour euh, jubalee ci kaa lay wat pour wax ak moom mais gisul Wade ba léegi parce que ku mel ni Idrissa Seck ñoomu ñoo entouré lay Wade tere ko mu dem wax ak jubalee ci ñu toog nag en tant que parti politique ne ko écouté am nga rendez-vous ak a Abdoulaye Wade ñu ngi toog di ko xaar di dégg ci rajo bi que moom mu ngi fële mu ngi dem Saint li nga xaw ma Louga def escale bi mbay ci Mbaye Jacques Diop te heure bi fii la ko waroon a fekk ci seen rendez-vous donc ñun mais parti politique la ñu nekk donc on va pas se laisser sacrifier ñun ñoo décider en tant que parti politique te témoin yaa ngi fi moo Amara ngi fi Mbaye Diouf a ngi fi ñëpp a ngi fi ñu wax Djibo Ka parti que bi décidé na ne que yow da ngay dem waxtaan ak koo xam ne bëgg na ko waxtaan ak yow. RFM bitim réew. ñu ànd ceeg El Hadj Ahmed Aïdara jërëjëf kon Alaaji Assane Gueye xabaaru bitim réew yi ci diwaanuk Libi foofee kon la ñu koy dooree ndaxte ña nga xam ne daal ñooy kon fippu ya di rebelle ya ñoom nag xam nañ ne fi nekk ne léegi gox boobee kon ñu naan brigade teg nañu kon loxo ca mbir mu ni mel waaye nag ñi nga xam ne ñoo ànd kon ak lii di Xadafi maanaam takk der ya lànk nañ ndaare kon ba tëdd ca suuf soxna naata mbay jamono jile kenn xamagul kon kan moo teg loxo ci li nga xam ne moo di brigade wàll wi fipp yi ñoom nee nañ ginnaaw ay bés bañ doon xeex jamono jile ñoom ñoo ca teg loxo sa beneen wàll wa nag régime bi ne moom a conseil national de transition bi kàddu yooyu li nga xam ne yëkkati nañ ko dara du ci dëgg Brega nag nekk na benn gox boo xam ne mi ngi toll ci juróom-ñetti téeméeri kilomètres ci Tripoli di capitale bi ak tamit ñaar téeméer ak ñeent fukki kilomètres ci Benghazi nga xamante ni sax foofooy màkkaanu fippu ya bu ñu fexee nag ba jël Brega nga xamante ni dafa bëri pétrole loolu le fippu yi nag bu ñu fexee ba daal di jël kon Brega moom la nga xamante ni ab port bu bëri pétrole loolu la dina tax ba ñu daal di moom ay infrastructure yu bëri kon ci wàllum pétrole nga xamante ni sax koom-koomu réew mi ci la suqandiku jamono ji la nag li ñuy laajte kon mooy kan ci régime bi wala fippu yi moom moo yor Brega mbir mi daal ba tey leerul beneen mbir mu ñàkk a leer mooy ndaje bi am ci diggante ñi nga xamante ni Mouammar Kadhafi ñoom la yónni woon ak tamit diplomatie bu états bu ñu sukkandikoo ci ambassadeur États-Unis ca Libye mbir mi daal nekkul woon ay waxtaan waaye li ñu bëggoon rek mooy daal di jottali ab benn bataaxal kii di Mouammar Kadhafi ki yor kàddu Kadhafi nag ne moom seen ndaje boobule dafa nekkoon ab waxtaan ci diggante américains yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa rek Mouammar Kadhafi ndaje boobu boobule nag mi ngi amoon niki samedi bi la weesu ca Tunisie ndaw Muammar Kadhafi daal di cay dolli ni ñoom seenub régime maanaam Muammar Kadhafi taxaw na ngir daal di ubbi ay waxtaan ngir ñu daal di jeexal crise ba ba jàmm mën a dellusiwaat ca réew ma waaye nag fas yéenewu la nangu benn condition bu bàyyeekoo ci États-Unis ak yeneen réew yi seq OTAN. wàllum diplomatie ginnaaw li bi ñu waxtaanee kon diggante Paris ak euh, lii di Abidjan jàppale ne nag waa France ñoom fas yéene ñoo taxaw ngir jàppale daal nguuru kii di Alassane Dramane Ouattara premier ministre ba ci boppam bu France di François Fillon moom moo daal di kon xamle lu ni mel moom nag xamle na ne daal fi mu nekk nii France taxaw nañu. ngir rek ne maanaam ñoom ñooy waa Côte d'Ivoire googee ci euh, coow moom moo fa am waaye itam danañ leen jàppale ci lu jëm jëm ci waaye ci lu jëm ci wàllub kaaraange am na ci daal ay dige yu bëree bëri yoo xam ne kon France jël na ko ngir dimbalee ko kon lii di Côte d'Ivoire Alaaji Asan ca diwaanu Tunisie foofee la ñuy jëm kuréel gi nga xam ne moo njaboote lépp lu jëm ci wàllum àq ak yelleef doomu aadama xeex ba ñoom nag taxaw nañu ngir ni ki kon suba ci àllarba ji danañu génnee nag ab lii wër yaatoo yaatu ab téere woo xam ni danañ ca génneewaat la nga xam ne moom moo fa xew woon ak li nga xam ne moo fa xew kon nii ñuy àddoo maanaam jël daal ay dogal yoo xam ne yëfu maa tey buur di def nag lu ni mel wàllum impunité def lu ni wéng nii te dara du la ca fekk ak yeneen ak yeneen am na ab cong goo xam ne ni mu ko nañu ko ci diwaan ko Guinée Conakry bu ñu sukkandikoo nag ci yenn ci ay xabaar rawatina yi nga xam ne daal moo jógee kon ci suñu naatango bi nga xam ni moo ñu dëjul kon ca bërëb boobee moom nag jàpp na ne rek kii di président ba konde dara kon da dalul cong googee nag maanaam jàpp leen ne am na ci kenn koo xam ne ñàkk na ca kon bakkanam waaye nag la nga xam ne daal moo ca yàqu ci ay matériel jéggi na dayo bu ñu sukkandikoo ci ëttu tasu xabaar bii nga xam ne maanaam moom mooy euh, Jeune Afrique waaye nag jàpp leen ne rek président ba moom euh, rëcc na moom sax dalluwaayam wooyee la ñu nag yëkkati daal ay sox daal di ko fay dóor bu ñu sukkandikoo nag ci ay seede yoo xam ni ñoo yëkkati kàddu yooyee mooy ne attaque bi daal ay booru une heure du matin bi muy dem kon ba teg fanweeri minute la El Hadj Assane Gueye lii moo fi ruusee woon ci xibaar ci bitim réew. jërëjëf El Hadj Ahmed RFM benn waxtu tegal ñaar fukki minutes. wàllu sport ak Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay ziar sëñ Cheikh dañ koy door làmb jeeg euh, daan bi nu teg Ama Balde écurie Falay Balde ñoom réagir daal di addu ci kon aj gi moom nag aj nañ ko lu tolloog benn atum lëmb juróom-ñeent yi moom nag du ci bëre ñett yi mën na cee dellu si waat daal di euh, sanction googu nag xam ngeen waa CNG ñoom ñoo ko daal jël gannaaw ba ñu jàppee ni daal kii di Ama Balde na mu doxalee ajuma gi weesu ci combat la du CNG jël nañ ko ñi nga xam te ñoo fa rek Ama Baldé daal dinañ si d'accord donte sax ñu ngi ñaan CNG daal ñu daal leen baal dañ si déglu manager Ama di Abdou Bakhoum. waa CNG vraiment xamal nañ ne bu ngeen defee action yu mel noonu parce que comme dañ ne comme quoi que xam nga ne ay jaan mais comme genre yeew la yeew la ñoom xam ko noonu am na ñu bari ñoo xam ne buy ubbite boo xam ne jaan dañ naa jaan la mais yeew la. donc euh, moom bi mu koy indi sax ñun yëguñu ko ñun ñëpp staff kenn ñu ko yëgu ko xëy na ay quelques xaritam yu ay moromam yu ndaw parce que boo gisee ay moroom dañ na ñii ñoom maase ñoom da nga yaakaar ne limos ki loolu bokk na ci loo xam ne ni daal ñun su ma nee nii ñun duñ ci am lenn lañ ciy contesté comme quoi que suñu kilifa la ñu bu ñu ñëwee nañu lii la ñu daal bu ñu ñëw sax bu leen ñëwati ci làmb ji dootu ñëw ci làmb ji mais comme yàlla dogal na doxal na noonu ñun itam dañu mën topp ci seen ginnaaw rek li leen ñaan parce que ñun fekk na xam nañu loolu nangu nañu li ñu sanction bi bu ko defee nag wala CNG xool ni ñu ko dogalee yërmande bu ci mën a am ñoo ci mën a def yërmande bu fekkee ni tam mën nañoo def seen liggéey ba mu à 100 pour cent itam bu boobaa da ngay mën a topp seen kaw rek di ñaan mais bu leen neexee ñu def seen liggéey ko bu leen neexee ñu baal la. kooku mooy Abdou Bakhoum di manager Ama Baldé si ab fàttali nag Ama Baldé ci atum ñeenti fan ci weeru juillet euh, ñi nga xam te ñu di waa CNG jotoon nañ ko dànkaaf gannaaw ba mu indee ab yeew ci biir euh, langue gi ci combat moom digganteem ma Baye Pël la woon ba tey ci wàllu bëree dóor ki nga xamante ni moo di Balla Gaye 2 ak Mohamed Ndao Tyson dañuy tase tey jii ci ngoon foofu la ci stade Iba Mar Diop loolu doon face à face ñaareel gi nag dinañ ko amal ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru juillet foofu la ci dalluwaay rajo télévision bu Sénégal di RTS euh, confrontation bi maanaam jongante gi diggante Balla Gaye numéro 2 ak Mohamed Ndao Tyson fanweeri fan ak benn ci weeru juillet ci stade Demba Diop bu Dakar di Gaston Production. ñu am yaakaar CNG victoire yi wér ci làmb ji la bokk. boo seetee sax kàddu yi nga xamante manager am daal dina ko yëkkati. Euh, yaakaar yaram daw na te du ñàkk ñooñu xëy na daal di leen baal donte ñoo tooñ. njuumte a a <laughs> ci Maputo Sénégal yi ngi koy waajal. waaw jamono jii daanaka lépp yemb na daal ngir permettre suñu athlètes yi daal di participer si Jeux africains yooyu ñu na ma amal foofu la ca Maputo ñetti fan jàpp fukki fan juróom-ñett ci weeru septembre foofu la euh, ci mbir boole ci xayma nag koppar yi toll na si 600 millions si suñuy koppar kon bokk ñu déglu si ministre Faustin Diatta ci micro Salif Sow. sama département sport jël nañu matukaay yëpp euh, joxe nañu information yi wax na ñoo ko war a am ministre des finances premier ministre président waroon dem ci loolu yëpp donc euh, lu mel ni dala xaalis ak yeneen équipe bay yëpp pare na. fu ñu toll nii ñu ngi commencé di seet ñu war a dem yëpp ku nekk ñu laaj carte d'identité am laaj passeport mu war a am est-ce que am na santé est-ce que jàpp na formé pour mu dem défense couleur ñu ciy jubli pour pour ñëpp teew bés boobu tey bu ñëwee pour ñi gunge leen ba Maputo. Euh, donc juróom benn téeméer million. ministre Faustin Diatta yore wàllu sport Sénégal bi jeexale football bi sëñ Cheikh. ak Ligue 2 bi tey ji nag ñuy wéyal seen ñaar fukkeel ak ñetteelu bëccëg jongante gu am solo diggante euh, Yégo ak ñi nga xamante ne di waa génération foot ñaareelu jongante gi Renaissance ak Stade de buur ñaari jongante yooyu yëpp nag ñu koy amal foofu la ci stade Demba Diop jàppale nag yéego bu fekkente ne am na ndam ci kaw génération foot mi féetee ci place bu mujj gi dana tolloki poñ ak jàmbaar bu sali donte jàmbaar bu sali nag footballagul ndax dañoo tukki dem bitim réew amal ab tournoi euh, ñoom nag si ñaar fukk ak ñetteelu bëccëg bi jàmbaar bu sali nar na sa tasek éthique bu mbooro euh, geneen jongante gi nag diggante ñambur de Louga la ak étoile Lusitana waaye ñaari jongante yooyu yëpp dañ leen ajandi ba jëmmi jamono alaaj asan bi jërëjëf Cheikh RFM rajo bi leen di xibaar saa su ñu yegg si ci wàllu reportage bi waxtaanee koor gi di am yaakaar sekke nag njawee ni bañ a zappe yemale fi xibaar yi ndax koor moom sawarunu ci jàpp leen ni soreetul ay fana ci des marché bi ngeen doon jëral xool na mu demee foofu waaye daal moom nit fan yii gën a soxla jamono koor ci réew ci marché boobu Aminata Goudiaby